docteur Abdou Khadre Sanoko ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax am mbégte ànd ak yow ci waxtaan wi tey euh, ni ma ko waxee sociologue nga sa xel ma ci itam ci wàllu psychologie ak science politique alors docteur euh, dañuy tàmbali ak ñaari discours yi askan wi dégg démb ci ngoon ba ci njëkk jóge ci Ousmane Sonko ba ca des ci njiitu réew mi Macky Sall d'abord bu Ousmane Sonko lu nu ci mën a jàpp ci tënk. bu Ousmane Sonko de soo ko seetloo bu ci biir nga jël élément. communication yi li ñuy wax euh, silence yi noppi yi intonation bi paracommunicationnel bi c'est-à-dire maanaam geste yi nga jël nga jël projet prosodie bi mooy ni mu doon waxee ainsi de suite da ngay xam ni <laughs> li ñuy wax ci suñu jargon léeg-léeg nga dégg kenn mu ne la mere naal trop mais ki doon wax ku mere Macky Sall trop la même si euh, vraiment avec prouesse contenir na ko ba amul benn excès mm. sauf que Euh, bu leen fàtte ni dañ ko tuumaal na kenn ku nekk jël nga seet ko ci sa bopp ñu takkal la loo xam ne nii yow da nga am certitude sa diggante ak sa akulaay taala ko donc dañu gis koo xam ne nii ci kàddu gi ak kalaama gi loolu la wax musclé waaw discours am dafa tàngoon jër même su fekkee ne nag wut na stratégie ba. Mm-hmm. waxu fa ñaaw waxu falu lu débordé mais soo gisee ci manière bi mu koy waxee da ngay xam ni. Euh, daf doon exprimer daf doon euh, traduire euh, peut-être yëg-yëg bi nga xam ne ni nit ñi dañ koo am ci frustration bu yàgg a yàgg a yàgg a yàgg mm-hmm. loolu la jël et puis da ngay xam ni aussi décès yi nga xam ni maanaam bakkan yi wadd ci mbir mi daf ko metti parce que xam na ni en vérité ak loo ci mënti dégg ci histoire ci truc on dira toujours que moom turam dina xaw a ñëwaat ci ne boo gisee ay fukki nit ay truc dafa amoon benn problème bu amoon bu bu bu boo xam ne dañ doon taqal ab politicien et ça c'est normal que mu métti ko daf lay mm-hmm. daf lay daf lay leer ni euh, loolu da koy métti trop parce que ci tuuma buñ ko tuuma tuumaal te bon il faut le reconnaître te sénégalais yu bëri jàpp ni mm-hmm. pour seen ci seen biir bopp daal noo tuuma boobu moom dafay jafe trop trop nga dugal ko ci seen biir bopp léegi mun ne ci ci mbir mu ndaw nii parce que man damay def politique rek ci la ñu bëgg a profité pour jaar si ba deret yëpp tuuru donc discours kuy opposé wu discours koo xam ne ni aussi buggul wax ma Samba buggul wax ak ma Demba dafa bëgg am benn dualité frontale bu bu bu bu direct avec Macky Sall. Mhm. beneen côté bi nag Macky Sall dafa bëggoon wan ne man man maa njaboote ñëpp wax na ba jeexal déggoo ko benn yoon mu tudd Ousmane ko mhm. parce que buggul. mu nekk benn débat entre d'ailleurs loolu Ousmane Sonko da koo yàgga a teg Macky Sall da koo yàgg a bañ Ousmane Sonko a voulu toujours wane ni boole leen maa moom ñu waxtaan. def ko nawle daal vis-à-vis. Mhm. voilà mais waa ji moom day def lépp pour contourner ko léeg-léeg mu yónnee ko chargé de commune léeg-léeg mu yónnee ko ab ministre pour wan ko ne ko man ak yow bokkuñu dayoo bon c'est c'est vrai que ñaari camp yi bokkul kii dafa nekk opposant ki nekk njiitu réew. Mhm. léegi njiitu réew mi nag moom bi muy jël kàddu il faut le reconnaître dafa yéegal boppam. ci piédestal boo xam ne nii moom dafa ne waxuma pour camp politique damay wax pour réew mi yëpp te boo seetloo bu baax moom ñi mu doon gën a waxal mooy ñi nga xam dañ ci doon dox tànku jàmm ñi mu doon gën a waxal mooy pour apaiser sëriñ si pour wan leen ni dañuy wax ne li ngeen may wax dama koy dégg te duma ko def mais li ngeen ma waxoon exactement def naa ko maa ngi wut jàmm ba pare aussi mu contourner Sonko pour wax ak jeunes yi directement mooy maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo wàccoon au sens propre du terme. Mm-hmm. pour wax li ngeen may Euh, dég dégtal dégg naa ko te dinaa ci wut ay saafara. Hmm. ci waxin bi nag wax dëgg fa yàlla waxu waxinu kilifa la. Hmm. mais dañ doon xaar mu gunge ko ak ay actes yoo xam ne actes yu fort la fa du rek ay affaire wàññi ceeb wàññi de loolu sax mënoon na compliqué peut-être hmm. parce que euh, situation économique bi ak conjoncture bi internationale mën na ko bañ a joxe mais mënoon na def ñetti mbir benn bi mooy mu ne procureur de la république tegg naa la fi nga nekk. beneen bi. mooy mu ne euh, juge d'instruction bi teggi naa la fi nga nekk beneen bi ki des mu ne prisonniers yi ñu jàppoon yëpp ci mbir mi bàyyi naa leen ki nga ñetti acteurs yi bu ko defoon. Hmm. nit ñi giif xaw a wàcc mais wax bi rafet na jekk na jub na waxu kilifa la waaye daf koo gungewul ak ay actes forts sinon xaalis rek la jël parce que problème mu sénégalais yi véritablement dafa dépassé affaire trois cent milliards ñaata milliards la fi waat waxoon ñaata milliards moom ci boppam la fi waxoon mais problème bi mooy ñoom mun nañ am yéene bi. mais fi muy jaar ba egsi ci ñi ci ñi ko ci ñi mu war a dajale souvent c'est ça problème te loolu nag la ñuy wax vraie frustration sociale te loolu moo dal Sénégal mais quand même ñaari discours yi ay discours yu opposé la hmm. ku doon wax pour taw pour jàmbat pour wax li ko metti ak li wax metti askan ak ki doon wax aussi pour dalal hmm. alors moom annoncé na justement pour jeunes yi ay enveloppe euh, notamment ay ay ay projet yoo xam ne trois cent milliards la ci na ma def nee na ñetti at yi ñu ñëw yi ñu dëgmal yaakaaroon ni loolu solution la fii euh, yëfi toll la gis nga solution da koy natt par rapport ak dayoog jafe-jafe bi hmm. jafe-jafe bi weesu na ay trois cent milliards jafe-jafe bi affaire u nit la affaire u système ak société dañoo am impression que société bi ñu nekk nii dafa am ñu am xaalis bi ci génn am ñoo xam ni ñoo ëpp mais munuñu mais tey munoo munoo ñetti ñett ndekki añ reer Sénégal ci kër yi muy am ñun nekkuñu ay sociologue de salon yuy théoriser rek ci ay séminaire bi dañuy dugg ci terrain bi di xool hmm. mais ñaata nit ñooy nekk hôpital seen jabar ak accouché ñuy dem di màjjal pour génn ko ñaata nit ñooy am ñoo xam ne ñi dañoo ñëw am ku wàññeeku pour ñu génne seen corps sax mais il faut ñu laaj leen xaalis ñaata nit lañu wax ne école moom mooy instrument bi nga xam ne moo leen di mën yéen ñëpp góor góorlu soo ci amee ay lijaasa da ngay tekki ñaata nit ñoo fi nekk gis nga man am na sociologue yu ma gën a am doctorat te mënuñu xamul lu ñuy mujj def dem di jàngale ay école privée dem di jàngale ay école primaire mais réew moo xam ne nii daf la war a garantir ne mais tey dugal ci direction générale yi dugg ci ministère yi dugg présidence am na ñoo xam ne ñi lijaasa tegu leen fa xam-xam tegu leen fa mën-mën tegu leen fa ñu leen fa teg leen rek parce que dañuy def politique wala dañ leen xam wala dañoo am ku leen gunge même moment mu am ay nit ñoo xam ne nii mais seen dund yëpp fii lañ ko defee tàggat seen bopp def diplôme yi ñu war a def dem concours yi ñu war a def mais ñu fexe ba am ñaar fukk donc ñi génn démb si mbedd mi dañ doon waxal ay yaay di waxal ay nijaay di waxal ay mais xam nga ñaata femme tey journée semaine de la femme la quatre heures du matin la ñuy yeew pour ñu yóbbu seen kër dépense il faut ñu yeewu dem jaay géej gi dem jaay yéet dem mais ñëpp ñu empêche ñu doon jaay ndambe ñu doon jaay cere par vingt une couvre-feu bi ñëw ñooñu ñëpp ñu ne leen dem leen ngeen tëdd seen biir kër au même moment dañuy lekk di naan di deseeru di tukki di dem hôtel mais affaire boobu enveloppe moo koy réglé. xam nga lu Sénégalais yi soxla ñu redresser seen société ba ñu def affaire de tell sorte que ku jàng tari mën loolu laa doon wax ci benn article bu ma publier mais lan moo tax ñi nga xam ni dañuy semer duñu récolter mais ñi nga xam ni defuñu dara la ñuy fekk seen kaw lal semer wuñu ñoom bay bayuñu te ñoom ñooy góob. ñoo bëgg société bi ñu nekk fii ñoom ñu def affaire yi de telle sorte que ku génn ci. ñu def de de telle sorte que boo amee jafe-jafe ak nit ngeen dem tribunal c'est pas parce que jàngoo c'est pas parce que kenn xamul la c'est pas parce que moo grave que dañ la war a noot wala ci kaso tey Ousmane Sonko lañ xam ñu bëri ñu ngi ci kaso bi leen a tooñ noot leen tuumaal leen taqal leen mais parce que seen jàng soriwul parce que xamuñu kenn parce que ah du kudd bu mag parce que ainsi de suite ainsi de suite mm. frustration yooyu du enveloppe ko koy faj mm. frustration yi jege seen peuple moo koy faj frustration yooyu déglu leen lan moo tax duñu duñu tijji ay large concertation avec les jeunes avec les jeunes diplômés avec les intellectuels mais assis dañ dialogue national ou ay soi-disant problème mu Sénégal problème problème mu injustice sociale la problème mu déséquilibre social dañoo am impression dafa comme on laaj mooy frotté wu ak cuuraay hmm. cuuraay bi mooy ñi am lool laaj bi mooy ñi nga dañoo ñàkk lool ci Sénégal boobu lañ nekk hmm. dañoo bëgg nag Sénégal boo xam ni dafa dayoo yamoo journalistes yi suñ demee liggéey bi ci gis seen bopp mais tey tu te pays bu mel ni Sénégal journaliste war na jël war na jël euh, plan d'eau professeur d'université war na jël ay jakarta ah réew mu mel ni daal ay médecins suñu fayee ko wala enseignants yi ñaari fan seen xaalis jeex c'est de ça dont on loolu la ñu doon exprimer ci mbedd bi hmm. c'est beaucoup plus global ak ay histoire kaay ma formel Sénégal ñu bëri ñu fi formé ñu liggéey hmm. dañu bëgg société juste ñu ñu ñu ñu permettre ñu enfin que ñuy nommer ay ministres ak ay députés yoo xam ne bokkuñu fenn hmm. seen xam-xam ak seen dayoo moo leen fa teg ak bëgg seen Sénégal ak bëgg a changer seen réew. Mhm. impression boobu la ñu amul. Mhm. président nee na dégg na loolu est-ce que mun nañu yaakaar kon à partir de de tey wala à partir de fan yi ñu génn ñu am doxalin bu bees ci suñu kilifa yi ak politique yi de manière générale. man man personnellement man maay koo xam ne nii man nit loo wax. Mhm. dama la ciy gëm. ma am ci njortu bu rafet gis nga bi président waxee ni man affaire bi sama yoon nekku ci dama ne leen man gën ko ba keroog may gis leneen mais na posé ay actes yu bi Sonko ne non man viol bi dañ ma koy ba fi may wax ak yow nii li mu wax loolu laa jàpp parce que dama ci jàpp ba keroog may gis leneen. Mm-hmm. mais dafa war a être accompagné nag par des actes xam nga su fekkee ni mën nañ ko gëm dañu war a xaar affaire bi du ay effet d'annonce nga rek non non non dégg naa naa def ay ay ngir yàlla ak yonent bi yéen bërki dem woo ngeen ma fi ci ci rajo bi ngeen ni ma. Mm-hmm. problème bi nan nga ko gisee. ma ni leen na teggi li mu teg ci ndoddam wax ak kilifa diine yi parce que ñoom rek ñoom ñoo mën a waxal nit ñi nañ ci dugal seen loxo mu faju mais kon ci biir société bi am na ñoo xam ne ñi ñu fenn am nañ ci nañu tijji concertation ñu waxtaane tegal xool mm-hmm. nan lañ koy tegaatee ci ay raay et de grâce waxuma ay concertation si wàllu politique mm-hmm. nañ dem si biir koñ yi ñu jël les leaders jeunes les leaders femmes ñu waxtaan ak ñoom d'ailleurs dañuy wax ne li nga bëgg a def pour man te waxtaane woo ko ak man soo ko defee aussi damay jàpp ni defoo ko pour man koo def contre man mhm. nañ tëb nañ tëb ay affaire u syndicat affaire nañ tëb ñoo ñëpp ñu jege askan wi waxtaan ak ñoom xam seen soxla ñu saafara ko su boobaa Sénégal dina teguwaat ci ay raay ñu dem ci ay élection dégg nga ma ku nekk samp sa ndëgg ñoom ñëpp ñoom Karim ak ñoom Khalifa ak ñoom Sonko. Mm-hmm. ki nga xam ne askan wi dañu la bëgg nga jiite leen jiite leen ñooñu aussi ñuy am même exigence bi ñu amoon ci Abdoulaye Wade ak ci Macky Sall. c'est tout. Mm-hmm. ñu bëri jàpp nañu ne dafa yéex a wax ndax loolu jaadu na. waaw xam nga politique souvent sax mu am envie wax. Mm-hmm. mais dafay jàpp ni su ma waxee dañ ni non non kon man dama wax sous la pression de la rue donc day xaar porox ndoll bu sew mu dugg ci. te sax am na ñu ne ñi ñuy wax ni dañoo dem ni xalif généraux yi ñoo leen yoon yónni kenn yónniwu leen am nañu am na dégg naa ci biir dëgg la wala je ne sais mais en tout tout le temps dañuy bëgg pro d'ailleurs bi wax def ne waaw déglu naa ñu wax déglu na moom dafa jàpp ni ñooñu wax ak moom ci la profité pour génn. Hmm. bon par contre en vérité li tax mu génn mooy jaamaarloo ci ay xalaat ak ay gis-gis te peuple bi nga xam ni war a tranché ci débat yi dañoo jëloon. parti pour Sonko parce que dañ jàpp ni dañ ko toj. Hmm. bi mu xamee ni yëf yaa ngi saf. mu wax léegi nag pour mu wax il faut mu trouver prétexte prétexte bi la doon xaar hmm. daf ko jël ci ni dañ ko moom en tant que kilifa ak njiitu réew mi mu war a dalal ñooñu ñëpp la doon xaar pour déglu leen bi mu dégloo ñooñu ba pare déglu na askanam xam na ni jafe-jafe yu bëri na levé naa couvre-feu bi yóbbu naa ko minuit yóbbu naa ko. donc souvent il faut aussi nga comprendre politique ni muy doxee. Hmm. même ci biir apaisement bi kenn du bëgg aussi ñu ne la da ragal da ngaa dellu ginnaaw da ngaa dañ koy defee ci ni mu gën a rafetee donc hmm. loolu moo tax mu mu mu yéex a jël parole. mais man de personnellement suma bokkoon ci conseiller mi dam koy wax ne ko jour bi première manifestation yi amee biir place de de de de l' indépendance moom de l'obélisque hmm. foofu lay wàcc. wër ko mu def fa benn déclaration ñëpp di ko gis mu sol woyof. mu ne sénégalais yi yéen a ma fal fii mooy place bu symbolique mm. dégg naa gis naa xeer yi gis naa lacrymogène yi xam naa li ngeen bëgg naa ci dox c'est ça image yu forte yooyu la politique war a am mais mm. fii politique yi amuñu courage boobu parce que ñi leen di xelal dëgg-dëgg nekkuñu fa pour di leen xelal ci xam-xam parce que amuñu ko. Mm. ñu ci bëri dañ lay xelal parce que dañ la faral suñ lay faral nag genn wàll gi yëpp ci guuta lañ lay dugal. Mm-hmm. alors ñu jeexal ak euh, xëy na lu jaaxal aussi ñu bëri sénégalais yi ñu doon wax dañu dal ay nit yu sedd lañu euh, certainement sax am na politique yu ko yu ko gëmoon ba tax ñuy am yenn doxalin yi sénégalais yooyu tey ñoo génn ànd ak xadar goo xam ni euh, lu ñu dul faral di gis la toj gi takk der yi itam yenn saa ñu soqi ay bal bakkan yi rot yëpp gis nañu ko loolu yow en tant que psychologue noo ko jàngatee. mais man dama am impression hmm. fan la dëkk. Lat Joor fu mu dëkk Buur Siin fu mu dëkk mm. déedéet sénégalais dañoo am ak dal su fekkee ni permettre nga leen li ñuy xalaat ak li leen di metti ñu koy wax mm. suñu wax yëpp ci werante ñun nga werante dafa dafa nekk lu am solo ci biir dama mm. werante mooy nga wax noonu d'accord ma noonu dem demeewul nii li nga wax tegoo ko fi foo ko teg ñu wax ñu dañuy jug li ñu metti yëpp ñu jaarale ko ci suñu yaram ci énergie mu jàll après ñu ñu ñu naan ndox ñu ne ay giif ñu pare kenn kafre après ñu naan naan suñu ataaya lekk suñu ceeb dem mais sénégalais bis boo ko am mu wax bis bu buggee wax nga ne ko nga takk gémmiñam bis bu buggee wax fe muy guux loolu la ñuy wax refoulé di guux di guux di guux saa yu buggee wax nga ne ko doo ko fi waxee su buggee comité yi su buggee def marche nga ne ko déedéet mais loolu moom boo ko defee sénégalais bis buy fipp nga xam d'ailleurs loolu ñëpp loolu la ñuy wax gis nga nit ku sedd bis boo ko poussé à bout bis bu réagir mu bett ñëpp ñëpp ne waaw xaw ma woon ni nii la mel mais bu leen fàtte ni l'homme est un animal pensant ñu dañoo am ay instinct am raison sénégalais raison day jël le dessus presque pour la majeure partie du temps ci instinct mm-hmm. mais boo dof dof loo ba yëngal instinct waaw ah, Sénégal njaay lañu wax te gaynde njaay la sant mm-hmm. bis boo ko nag poussé au à bout. Mhm. mais su réagir gis nañ ko fi en deux mille. Mhm. gis nañ ko fi en deux mille douze. Mhm. moom la ñuy commencé gis ni. ci takk der yi nag waaw ci takk der yi nag dafa ci takk nag foofu il faut ñu taxaw. gis na am na doo ko def juste parce que ci ay émotion wala ngay wax ni ñu leen neex. na ku nekk men teg sa bopp ci takk der yi xeer yi ñëw ñu song la. nga nekk ci situation boo xam ne nii mais da nga ni est-ce que dinaa dund wala du dund mm-hmm. foofu tamit instinct mooy ñëw loolu la ñuy wax instinct de survie mm-hmm. da nga naan man balaa may préserver kenn sama bakkan lay préserver loolu moo tax ñuy ñuy ñuy ñuy wax ne nit waruñu créer ci réew situation boo xam ne nii mm-hmm. day dem ba jaamaarloo boobu war ci biir ci ñoom daf cay am ñoo xam ne nii lu ñu tiit tiit lu ñu jaaxle jaaxle dañuy ànd ak dal am na ñoo xam ne nii seen bopp la ñuy protéger moo tax aussi <coughs> il faut le reconnaître peuple bu mature mun na marche mun na def lu ko neex mhm. mais daf koy def ci sens pacifique ci sens pacifique malheureusement comme on dit la ful n'a pas d'âme la foule est aveugle gis nga mhm. mbooloo léegi koo xam ne nii bon da ngeen di ñëw di waxtaan sax benn booy sànni fa la xeer wala mu sànni tuuti donc mhm. foule kenn mënu ko contrôler mais suñu jógee si lii ñu jàngal ñu xoolaat d'abord ban yan citoyen lañ am ban presse lañ am ban classe politique lañ yooyu yëpp dinañu permettre sénégalais yi ku nekk am ci taxawaay yan intellectuel lañ am yan mhm. analyste lañ am yan politique lañ am yan gouvernant yan yan chef religieux lañ am parce que aussi euh, marche man d'accord naa ci loolu lañ ñun ñoo fi jëlee Abdou Diouf mais dañ doon def concert de casserole dañ doon dox dañ doon bloqué ay circulation mhm. mais dañ ko doon def aussi ci sens boo xam ne nii léeg-léeg avec le sens de la responsabilité. Mhm. nañu ñu jàngalaat ñu yi citoyenneté. c'est important jërëjëf santé nationale. def marche ramasser la fa nekk. wax li la naqadi. Mm. après nga dem sa yoon. Mm. su boobaa du voilà et puis ñu xam ne aussi force de l'ordre yi dañ ci am ay rak am ci ay mag am ci mm. ay papa am ci ay jëkkër. tey booy boobu ki ki perte loxoom noonu boo demee pikin mais seen waa kër dañoo am naqari te pourtant ñi doon sànni ci xeer am na ci ñoo xam ne seen i dëkkandoo lañ. donc il faut aussi ñuy def la part des choses afin que esprit de citoyen boobu jël le dessus et que Sénégal ñoo xam ne ñun ñëpp ko bokk. ñuy ak ñaayoo ci wàllu xel ak mhm. te non pas ñu koy def ci doole. jërëjëf docteur Abdou Khadre Sanoko ñu ngi lay gërëm sociologue nga sa xel màcc ci wàllu psychologie nga am itam euh, ab njàng euh, ci wàllu science politique euh, ñu ngi lay gërëm bu baax. amoon mbégte daal maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax. jërëjëf.